salaamaaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi ñu ngi ziar. waaw maa ngi ziar. waaw tey nag dañ leen a seet bëggoon ñu waxtaan ci li nga xam ne moo di diggante Ama Baldé ak bi naka ngeen koy ah, maa ngi sant yàlla di leen nuyu di leen ñaanal di ñaanal Sénégal yëpp waaw. ñu gis ni démb amoon na signature contrat kii di Ama Baldé ci lan ma waroon ah. ñu amoon mais Ama mujjul ñëw. ah. nin ko laala nin ko naa na yam rek tey ak tey mooy loolu waaw ñaata ñaata yoon la fi def ñaata yoon la fi def signature Modou Lo ñëwul Modou Lo ñëw na bu buntu Sen TV retourné dem yoonam ñëwaat ñëwaat ñaata ñaata signature la kii mooy loolu waaw bëri na mooy loolu na tey abay roy mooy loolu waaw ñoom seen pexe seen pexe lépp la ñoom seen pexe lépp lañ xam waaw ginde du moroomu dëmb ginde du moroomu dëmb waaw moom nit ñu ko la moom lu mu lal ak lu mu suul lépp la ñuy sundi moo mën a toog def tënkin easy mooy loolu waaw ay pexam yooyu muy jéem a def ni affaire yooyu mooy loolu ah ñu lay contrat bi TFM la ñuy signé looloo nekk si dossier yi de ñu jékki-jékki yóbbu ko yóbbu ko cosaan naa fay rooy affaire yu yomb yooyu mm-hmm. nañ seen xel yu ñu nañ bàyyi seen mooy loolu. kon nag da nga jàpp ne ay ndëgg sërëx la ci amoon. waaye yow ma ne la waaye yow ñii si oh, làmb yi mosu si làmb bi ñu si làmb bi te mosu ñoo jóge si làmb bi balaa nga xam ne ñu si làmb bi incha allah bu soobee yàlla la cinq ñu xam ne ñun ñu si làmb ji wala nekkuñu si làmb ji waaw. yi nga xam ne tey nee nañ ama parewul. ama parewul bu ñu la cinq la xam ko ku pare ak ku parewul ñoom si làmb ñoom si làmb lañ ko bëgg a teg làmb làmb de du du si làmb gis fu ñu fayee wax bàyyi jëf affaire bi jëf la de affaire bi jëf la de maam Seera Fall de maam Seera kenn du fay wax bàyyi jëf ñoom nañ leen jéem a jëfi mo gën ñuy nekk di wax rek di wajag wajag rek mbale mbale ciow la dakk de picc waatu ñorul dugub dañuy mbale mbale rek di wax waaw. mais li fekk yeen leen wara dal nak ngeen leen di dal si jamm rek lañ leen di dalé no violence waaw jamm rek lañ leen di dalé moy lool ñoo ko woote mooy loolu waaw waaw man tay do pigin lam ji pigin la fay roy moo bu ñëwee no moy lool jamm lañu ñu no violence affaire roy waa xaw arbitre mooy loolu dox seen diggante ba arbitre seen diggante affaire ñu ne kan mooy jàmbaar bis boobu nañu xam nag bu soobee yàlla yàlla yàlla may fekkee ak tan ko may ko Modou Lo may ko Ama ah mooy loolu may la may leen ko ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoom ñoom ñaan ñëpp ku nekk ñëw indaale état affaire yooyu foofu la ñu xamee ne kan mooy jàmbaar affaire yooyu. mais est-ce que jàpp nga ne combat bi dina am xeex. Hmm, la ñu wax bëre dóor bëre de <laughs> wax ñu bëre simple de. bëre dóor la ñu wax de doo dóora rek koo dóor muy mooy loolu koo dóor yaa xam koo dóor mu yëg ko koo dóor mu yëg xale bu rek bu taxawoon rek dóor ma koo gang mën naa ko sentir waaw ak nu mu koy maîtriser affaire yooyu waaw man dóor yomb na de wante man encaissé sa dóor moo jafe. dugub dibi yomb na. waaw waaw na nga mën a encaisser ko nga mën a encaisser ko ñu la ko kën kën nga maîtriser ko affaire yooyu dóor mhm. loolu la ñu wax waaw ñaata yoon moom ñaata yoon moom ñoo la buntu seen TV dem yoonam ay stade ñooy ay boyu tuuti mu gis ay moromu dem ba mangal ay boyu am kii dowaat dem mooy lool ah kenn waxul affaire ñoom lañ leen di bàyyi wax jërëk ñuy wax kenn du fay wax bàyyi jëf yow gàmmi ni ñu ko laa yóbbul ñii ba gàmmi affaire yooyu ay magum jëmb gars yi fay seen paas dem mooy loolu yóbbu leen ba gàmmee ñu xëy na leen ni soyantir amul affaire yooyu wala ñu dañu gën a am fula wala mooy loolu ah. kon yéen foofu ngeen ko teg parce que. teguñu eh, teguñu ko foofu de ñoom nuñ dem waxee foofu laan man fii kenn ki léegi samay kàddu la du kàddu ñoom Ama du kàddu ñoom Zil du kàddu kii man samay kàddu la waaw ah, ko foofu de man léegi samay kàddu la du ñoom ñoom lu ñuy ñoom lu ñuy xew ñoo ñoom lu ko de. ay Ndungu Nicolas ay ñoom Baye Ndiaye ñoo ñëpp lu ñuy xew ñoo dégguñu ko am nañ ba xam ne la cinq la cinq. non non nekk loolu tax ñu ñëw de kon ñoom lu ñuy wax kon moom moom lu ñuy wax ay ñuy respecté ñu kii respecté mooy loolu ñoom ñoo njëkk bañ a respecté nit ñi ndax nooy jëlee fii ay nit ñoom Nicolas ay ñoom kii nooy jëlee nit yóbbu leen ba gàmme xëy xëy ne leen nii ay fës fës amul ay dañ koy kii affaire kon ñoom ñoo njëkk respecté wul nit ñi nit ko fa la toll foo nga koy yem waaw man man eh, lijjantuwuma Baye Ndiaye lijjantuwuma nit ñi wala kenn fayuma kenn luyuma kenn moom ma si wante ñoom ay hypocrite lañ ay hypocrite lañ ñu yem si affaire promoteur di jéem bañ def affaire forfor la ah, waaw ñoom nañ def yem si affaire promoteur bañ a def affaire ref la bu soobee yàlla incha allah bu soobee yàlla dañ koy fokkati si moom par force ñoo ko fa am nañ koy jëlee ñoo ko fa am <laughs> dañ koy jëli dañ koy jëli yaa ko moom te iste wuñuut mooy loolu. am ñu ne dañ koy indaale Pikine am ñu naan Modou Lo da koy yóbbuwaat. salaam loolu nga siy wax. dañ koy indi. maanaam Pikine lay ñëwaat. ndax waaw Pikine lañ ko jëlee mais Pikine lay ñëwaat ndax Modou Lo fii la duggoon daan ki nga xam ne moo di am. waaw moo tax moo tax Pikine lay xam nga jëloon na ko génnee ko Pikine. ñoo koy jëlaat si loxoom dugalaat ko Pikine bu soobee yàlla. Ah, ñoom loolu jaaxul leen ndax maanaam ñoo na Pikine ba pare te daan na ki nga xam ne moo yoroon bu mu ne moom ñëwoon na Pikine daan na ki nga xamne mo do di roi bi kon tay mu ñëwaat Pikine daan leen du ko jaxal lu ko jaxal yow mu Lo mu ngi daan ama Sène rek wante ama Sène mën na bob Modou Lo di jangal bare barki rasul que Rasulullah na ko daan ñaari yoon mën na ko daan dix fois moy lolu làmb la rek làmb mo deme non wante ama Sène barki rasul Rasulullah mën na boot dul mo Lo di ja diko jangal bare, diko di ko bare ndoxtu mo deme non rek bis bo waree daano rek cuure ngay doon fay roy wante kudul ama kudul mënuloo jaaxalul ama sen waaw combat bi ñu naan euh, Ama Baldé bu yagge ci mom duko ko arrangé waa yow waaw waaw dego ma la mala mbele coola déggoo ma la gaay dañuy wax quoi ñom waaw dañuy wax mo tax ma ni mala mala ciola nañ baye bëss bëss ba roy moy loolu nañ baye bëss ay tapé dong mooy bëri nii di raante affaire neen la ñun ñëwuñu pour raayante ne affaire yooyu rek lu rek noonu de ñëwuñu pour raayante affaire yooyu dañuy ñëw ñëw pour bëree la ñuy wax dañuy ñëw dóor si bëree affaire wax dañoo ñëw di raayante affaire yooyu mooy loolu. di tàpp tàppal bu revanche la wala du revanche. revanche la waaw waaw waaw. ñu Mbapat. da nga koy d'accord. Mbapat. waaw mënu ma man mënu ma ko d'accord waaw mënu mënu ma lu ma teewul lu ma gisul sa mbët nii mooy lool ay nett la nii lool loolu mbapat la moom ñaata la ko doon daan mbapat xana xanaa ñooñu faalaay faalaay balde faalaay doo daanu ko mbapat xanaa loolu range daf ko songo sànni ko mbëkk ko mu dali nale waaw ah kii nu mu tudde bi saman sàng laasana laasana la laasana daaw na ko fi mbapat ak ñeneen ñeneen ñu ko daan mbapat affaire mooy loolu man ñu ma daan mbapat na bëri na waa dama sax dum leen lim sax ndax waaw man ñu ma daan mbapat loolu <laughs> ñu ma daan mbapat moom xaaju leen wante xoola rus naa sax taxaw di wax ji daan naa leen mbapat a loolu wax aarat mi mooy confirmation mais bu